Serigne Bell wax bu ko lancé. daal yi non dama def fecc tànk lancé dagg. dama ne sama estis rek. li fecc daal yi dagg. lan nga indaaleel waay lancé laa xamal daal yi de. lan nga indil ah, ñaan yàlla suñu borom rek mu sutaanal may ma ndam. mais moom nee na moom yooyu ngay wax wax ko moom nee na da nga taal. est-ce que mën na ko. mën na ko kay mënu ko. loolu la wax nee na mën na ko. mënu ko bàyyi naa lépp si loxoy yàlla. loo koy def ah lu ma si di am jot. li ma toog nii sama moo war a bëre Automax moom moo war a bëre ak limousine te dañ koy daan bu soobee yàlla. Automax ak limousine. waaw ak limousine. waaw seen bi gudd na de. non li gudd na mais Auto Max moo ko ëpp doole. moo ko ëpp doole xoolal dëgër bi sax duñu benn da koy tànn. akara mbër bi yóbbante na ma si yow. waaw. nee na da lay dóor dóor yu rëy. ah nee na da lay dóor dóor yu rëy tey. dóor yu rëy wax dama koy lem sànni ko fële. ah dama ko mën a dee. est-ce que di nga mbot. après ngay comprendre. lépp laay def. di nga ma fii kii Mbisaan Njoon la. yow di nga galgalé. lépp laay def. di nga ñiin. léegi du ma ko def. non non lem sant ko laa wax. ak lan. fils de Bécaye ba ci kanam. ak lan. fils de Bécaye ba ci kanam. wax ma rek loo indi. Fata la Fata la. Fata la ak lan. mbokk yi at bi bi sifle na ci diggante Birahim Junior ak Ngisali Ngisali na léegi léegi. Ibrahima Junior moo féete seen càmmoñ Ngisali moo nekk seen ndeyjoor Ngisali dóoraat na Ngisali daw na Sonko Ibrahima Junior bañ na Ngisali daan na Ibrahima jël bu gaaw jël bi gaaw na Ngisali mi ngi nekk école de lutte les moo daan Ibrahima Junior lu tax combat bi combat barki borom Touba Mbacké nii la mënoon demee. ndax sama yaay dafa maa ñaanal bay jooy may jooy man tamit. dina nga sama gaale la añee ne ma xoolal kii benn kuu la dem daw jël ko mu jeex. dina ko yàggam ah. dina xeex maa ngi sant Baye Sow jàpp na si combat bi Baye Sow. billahi wallahi xuudu. jàppale ma waa Fass yëmbal buun waa Fora waa Diamaguène góor yàlla yi ma leen di joxaale Ibrahima. Borodo Faye jantam bi le 4 la mercredi. incha allah nag góor yàlla yëpp teew bàyyi daaru yëpp. teew bàyyi daaru yëpp maa ngi bëggee waa parcelle. arbitre bi sifflé na diggante Mapol mooy deuxième combat bi ak Fifty Cents Mapol a ngi dóor Mapol a ngi dóor lambi Moustapha Gueye war naa bara bari galgal war naa bari dóor. li mu mënoon lépp war na am ci làmbam ma Paul ci génne ma Paul oh ma Paul daan na la ma Paul Lo yaakaarul woon am na ma Paul Lo foogul woon am na làmba nii ma Paul santal yàlla bi mu doolee ñëw tey bi jël bi ñëwee tey ndax nga war a mën a jàngaat lu bari ci làmb nga jàngaat lu bari oh làmba ngi noonu bisa gis ko ñu lëng la génne la ne la muñal ku bëri gis ko. yaa xam te daanu nga fo. waaw oh, garaaw defet moo ñëw rek defet moo. Ama Baldé. defet moo ñëw rek waaw. waaw waa ji ni ma bëreex moom mooy yomb na wa parce que signature bi lu ne la doon wax. signature bi da doon wax lu ne xam naa ne maa man su ma ko jàppee dama koy daal. may bëre moom dafa ma doon jéem a taf pour jéem a mbot xam nga bi may jéem a mbot ma jox ko wet ma jox ko sama bii ba mu dugal ma ko joxe ba mu jël lépp xam nga mu jéem a déclenché ma rocc sama tànk biñ ko mu dem. ku nekk sa kanam. waaw ñi ne sama kanam bari na damay ñaan yàlla comme maa ngi dugg bëre sama premier combat maa ngi ñaan yàlla. Ah, bi mooy sa premier combat. sama premier combat maa ngi ñaan yàlla. galaa bi ma dugg ma jël ko ah, ak jàmm salaam dugg si bisimilah rahmaani génne si alhamdulilah rabbil alamin di gërëm sama jabar bu baax xam nga. am nga am naa soxna. di gërëm di gërëm samay doom. teelul bu baax non non garaawul. xam nga garaawul. dañuy bañ fo rek moo tax ñu am soxna. les deux boo ñaa. les mooy daal mooy daal mooy daal waaw. man su teg sama xaalis ci les deux laay teg. les deux ngay teg les deux booy a song yaay borom. ku gën a gaaw waaw ku gën a gaaw Less 2 Boy Niang. Boy Niang. Ah. Boy Niang loo ci wax. Boy Niang. Ah. Less 2 daal li ma ci xam. ñaari xale yu ñeme yu am fit yu mën a bëre. dama ciy maandu rek ba xam lu yàlla def moo xam muy loolu. Ah, Less 2 moo ko man Less 2 Boy Niang. lu gars yi wax. mais gars am naa komba am maa ngi ñëw tojjatu stade bi. yow xam nga loolu sax. Euh, le 24 la waroon doon mais élection yi moo tax gars yi ravaillé ko mais léegi mu ñëw léegi mu ñëw. yomb yomb sama ko ma xamee nga ko yomb yow maa ngi ñëw tojjate stade bi. moo nge moo bu weex bi Tapha le vrai Laye Coppet Tapha le ngeen jàkkaar lool noonu ndeysaan boo gisee ni mu wotoo mu doon wateef goo xamee ne zulu yi ñoo koy watu ndeysaan Tapha le vrai Laye Coppet Tapha le vrai moo leen woon ginnaaw Laye Coppet jël na Tapha le vrai Tapha bañ na eh ah laay coppet day dóor xam nga lii nag dafa baax ndaxte Moustapha Gueye te lu toll ci neuf écuries yi ñooy xëccoo lii nga xamante ni nii moo di moo di tournoi tournoi de lutte avec frappe ëllëg si biir Moustapha Gueye def ko ndeysaan fam jaaroon rek la bëgg a xale yi. te bokk na ci li ko génne laay coppet jël na tànk ba jël na tànk tafaa koy jël na ko jël na ko jël na ko jël na ko jël na ko daan na ko jël na ko jël na ko jël na ko jël na ko daan na ko waaw waaw laay coppet waaw wane woon na boppam waaw yow la yow la ooy c'est vrai yow la bokkoo ci yëkkatil sa loxo yow la waaw yo dama ko bot doole bëre gën ko feree xale xawoon naa su ma ko jàppee lamb ji day jeex parce que li ma entraîné la. yow gis da nga xeex bi lu tax. da nga. da nga favoriser xeex xeex. non dëggul ci man xeex bi ko doon wan noonu mais dëggul ci man li ma bëggoon dama ko bëggoon jàpp daan ko. noo leen bëree. Ah? naka nga bëree ak moom. dama liir bëre bi rek dama ko ko wan pour mu xeex. te xeeb bi dëggul ci man mandil ko bëre. bu nekk sa kanam. Ah? nekk sa kanam. bi laa bëgg a jël allah bu neexee yàlla. arbitre bi sifflé kon Mbekh Ndoye. mbokk yi boobu mooy quatrième combat bi yaakaar naa ne tey Moustapha Gueye gars yi dinañ seetaan lamb lamb ju bari ba kontaan Mbekh Ndoye ngem boo bi moo nekk écurie Fass mi ngi bëri ak César Ba écurie Pikine mbooloo wax naa leen écurie yi nga xamante ni ñoo nekk ci tournoi bi bari nanu César ah César César ak mbeex ndeysaan xale yi li may wax rek nañ leen di jàngal bëre. embrasse fii loo gis. ma kii moo war a génne boppam ci poxtaan bi rek embarqué kan ci su kee ngeen bu weex. waaw César. ah, ah loolu parole de Ambroise Koura Sarr moo wax loolu na ngi ci biti ñu ngi ci biti génn noonu génn noonu génn noonu Cheikh Dione wàññi na lu bare bari ci yaram wi xaw ma lan la xaw ma moo wàññi xaw ma yaram wi wàññeeku xaw ma ñàkk entraînement la xamuma lan la xaw lan mooy def lii ci mbër Ambroise damaa gis ni Cheikh Diene bi yoon dafa tuuti torop est-ce que tuutaay bi dina ko arranger par rapport ak Malal Ndiaye waaw xam nga mun ngaa tuuti te am déplacement bëri lu ci am mooy déplacement moo ci am solo eh xoolal fi muy jàpp xoolal bi du arrêté lii eh arbitre yaa xanaa mooy fente ah loolu de mooy fente ñaari loxo lay dóore César César mbokk yi bi mooy sixième combat Baara Ndiaye Volcan ñu ngi mel ni ñu nekk ci lu traditionnel Ndefleng combat yi bari lool ah. Baara Ndiaye moo nekk seen càmmoñ Baara Ndiaye nekk seen di joor